mbokk yi bu doon ni ab elew ñu ne dawkatu jàng bu mag la moom Idrissa Seck yéenekaay bi di wal Walf di ne idi ay weer a ngi ca conseil économique social ba ñu ko tabb taxaw ba mu fa waroon a taxaw taxawu ko fa réew mi yëpp di laaj fa la Idrissa Seck nekk mu nekk ca Paris lu ne ñu tëddal ku ko fii ci réew di Sénégal yéenekaay front de terre bi di Walfadjri ne idi mi doon wax naan day xeex ak njublang góor góorgóorlu moom mbiri njublang yi mu ne war na cee jugee ndaxte nag booy xeex dara di ko tudd fu ne naan transparence na gaay jubal te bàyyi dëngal bi yow yaa ciy jiitu waaye Idrissa Seck lañ ko dénk dénk yoru ko yorin bu dal waaye tam waxul dara sénégalais yi waaye nag waroon naa teg dara ci noppi sénégalais ak seen i loxo ngir ñu xam idi ci lan la nekkoon ndaxte nag képp kuy digle cangaay da cangu loolu la waa wax kii di Bamba Fall mi tax répp jamono yi ci yeewi askan wi yéen kaay front de terre bi ne moom Bamba Fall moom la ñu def point focal bu yeewi askan wi fële ca Médina gars yi ànd ak Khalifa Ababacar Sall ne kii di Bamba Fall wóoluwun ko ndaxte saful yàpp saful jën nu ko neex mel kon nag jël di ko dénkaat lu ñëpp bokk ci yeewi askan wi sàkku ci Khalifa ak Sonko ñu jug ci kii di Bamba Fall bu dul loolu la lu xew ëllëg rek ñooma moo tax yéen bi di la turbine ne waa Médina ànduñu ak Bamba ci yeewi askan wi yeewi askan wi nag di gën di yaatu nag yéen bi di Vox Pop ne ñoom ña ngay a yaatal seen i bànqaas ndaxte doonoo jàpp ni élection locale yi te gënand la ak semmi neex benn naqadi benn nan war a def mooy ànd xeex ba gañe locale yi buñ ci amee ndam songu élection député i gaayam yéen kaay bi di l'info a lawal seen banqaas ndaxte dañoo gis ni taal bu taw tàkk fu ne lañ koy xambee lépp luñ mën a def ba gañe élection yi rek ñoom dañu koy def moo tax ku ñu gis ni gox ba nga ne punkal nga fa te mën nga fa tudd mbar fa tabaski rek ñu samp la ngir nga mën a mbëkk gaa yi jàll moo tax Déthié Fall ne Yewwi Askan Wi ci kanam tuuti dinañ gis leneen ñeneen dinañ ñëw si ne li di local yi ak législative yi nanu fexe xeex ba gagné ko di élection maire yi ak député yi bu loolu jàllee élection 2024 moom Macky sax du leen gis rawatina ñi di waa jamono yi Yewwi Askan Wi nag di defaru yéenekaay bi di Le Quotidien ne Benno coalition bu président Macky Sall ma ngay bëgg a tase tas tasar ndaxte ne xëccoo bi ci ville bu Ndakaaru Thiès Fatick ay kuy yu bëri dinañ fa mbëkkante waaye bu naree naan sax naanin wa moom mooy ñaaw moo tax xëccoo bi gars yi ma jambal jaañi ne faaw mu am ngir mën a dem ci élection locale yi élection locale yooyu le dina bëri ay werante waaye werante bu tar jëm ci ibbi gi ñuy ibbi période contentieuse di layoo bi ñu war a fas yéene door bis ni ki tey ci kenn koo xam ne da ngaa jàpp ni fan la dugal ak fan la féetale ci élection locale yi ak fan la bind àndoo ci bu boobaa mën ngaa dikk ni lii ànduma ci moo tax si di quotidien ne layo bi na kon duma ku mën sa moroom duma waa M2D ne ànduñu ci kenn ku leen duma di leen jaay doole ci nguurug Macky Sall gi leen ko jëmee ci yéenekaay bii di Vox Pop waa M2D ne gis ni jamono yi justice dañu ko jëfandikoo rek ngir faagaagal gars yi ndaxte ay fana ngi ñuy woote rek di jàppaate rek lu ne ñu def ko waa m 2 nag na Macky Sall loolu dafa war bu dul loolu le ñu dellowaat buum ca booy booy ga marsa tàngoon na de waa M2D ne li dul nangu mooy ak waa DSC nguur gi def leen ngànnaay goo xam ne rek ay bis ne rek ñu ne woo nanu diw woo nanu diw di woote rek ngir mën di nappaatee ñoom opposants yi ne ñoom duñ ci ànd Macky dafa fàtte weeru mars yéeni kaay bi di 24 heures ne mbiri député yi ñuy tudd ci mbiri passeport diplomatique di mbir moo xam ne réew mi yëpp ñoom ñoo ci am kersa Macky Sall ne nan la war def ba gàcce gi ñu mën a am fan lañ ko yemale waaye nag baadoolu bu jibee gàcce fekk tàbbi ci rek du am jàmm Cheikh Mbacké Bara na fa bu baax a baax ngir ñu leeral mbir mi waaye Moustapha Niasse ban ko laaja fa la mbir mi toll mu ne assemblée bi mën a ci sëgg naxte na jotagul benn kayit bu jugee ci ministre de la justice moo tax kii di président Macky Sall ginnaaw doxum ñaxtu bu liggéeykat yi doon amal fii ci mim réew di Sénégal doxum ñaxtu bu tar waa CSA woote woon ko ci dund gu seer gi ak liggéeykat yi dund gu wéree yaan yu ñuy dund ci kërug liggéeyukaay gi Macky Sall ci kàddu yi secrétaire général bu CSA di Elimane Diouf président Macky nee na dina leen dalal teg ci nag li ñuy jàmbat moom dina ci ndi ay saafara yokk gin doon jooy nag naan dund gi seer ceeb bi diwlin bi naka noonu suukar bi l'observateur ne beneen yokk mën naa am ñu ni ko ban yokk mën a yokk courant mara di naka noonu gaz mu nar a gën a jafewaat ci boroomi kër yi ndaxte pétrole bi ak na muy yëngoo ak jamono yi ni muy doxee nar a yokkaat bu yokkee courant ak gaz mun naa yokkaat de jug nag ci koom gi loolu nag la kilifa yi war a def rawatina tourisme bi tourisme bi jamono yi ak covid 19 bi ñoom li ñuy dund tar na yéeni kaay bi di direct news ne acteurs yi la ñuy sàkku mooy ñi ibbi frontières yi ba dem ak dikk bi doon lu mën a tax mën a yomb ba touristes yi mën a dikk dikkaat na moom caisse d'avance ca wilu Ndakaaru mu mel ne way wi këpp gaal kenn di ko way ci tefes de waaye soom war di moom moo koy way ci yéeni kaay bi Cheikh Wardini caisse d'avance ba Khalifa Sall duggoon ba mujjee ci kaso ba kii di Cheikh Wardini moom ubbi waat na ko ngir mën a jënd ceeb waaye nag fi am njuba di dëgg-dëgg yéen kaay bi di ne foofu moom noos moo fa ne ak badaxal ma daa mooy agence construction des bâtiments et édifices publics fii ci mimbre du Sénégal libé ne indemnité di ay ndàmpaay lan fa yokkal ay liggéeykat ñu dun loolu def ko bii bukki bii njur bii samba maanaam tubéy paate képp ci bolle te amul benn autorisation conseil de surveillance bi kii di DG bi di Amady Dieng yëkkati ay ndàmpaay yu toll toll ci huit cent mille francs baaxe ko ñett ci ay kàngam ji ay cadre ci loo xam ne yëgluwul te deful dara dakaa def ci li ko neex rek jamonoy mer na ba fut kañu mere ca Touba Mbacke nag moo njabootu Touré ak màggal gan doon màggal ak or gi ak wurus gi doon jëlaañoo foofu le yéeni kaay bi di surtout aane safiyatul amaan jaare ko ci Serigne Modou Lo Ngaabu nee neen mbir moomi lee ginnaaw vidéo yu ñu gis dinañ ko gëstu ba xool ko lépp luñ ci am jébbal ko xalif général des mourides te mbul deful nànk njaboot googilee seen nekkin sa Touba dina xajam de màggal googile nag jur tiis ci kii di Cheikh Niass yéeni kaay bi di l'observateur na moom Cheikh Niass doomu Sénégal ba nekkoon ca biti réew la ginnaaw police bi ko jàppoon di defi contrôle contrôle boobi lee bàmmeel la mujjee rongoñu yaayam di aram Thiam mi waxtaan ak l'observateur doon lu tis loolu ci Cheikh Niass fa mu mujj neexul kenn fi ñu mujj joueur équipe nationale Sénégal yi fubal ci Angleterre yéeni kaay bi di record ne dañ doon njort ni corona bi dina tax ñu téye leen de ba ñoom Sadio Mané duñ ñëw waaye dina ñëw de moom Sadio Mané bu ndee natt ci sénégalais yi dàq dugal ci Europe yéeni kaay bi di stade ne moom Sadio Mané bu dee ni daal xëccoo da ca am ak werante Sadio jiitu na leen sànni karawaas daan leen jël bu kenn mënta werante werante bi nag ci lamb ji jeex na tey ji lay ibbiwaat ci àjjuma ji yéeni kaay bi di sunu lamb ne ginnaaw ñetti weer goo xam ne corona moo ko tëraloon mbër yi ak lamb ji lamb ji fas yéene na ibbiwaat bis tey ci ajuma ji ma ne bu lamb ñi nare ubbiwaat est-ce que jarul ñu génne ko saraxu ngemb